누가 une explosion de saveur dans une même et seule bouteille Free yëpp nous sommes au Sénégal c'est anam yu sel naturel Jusito pour cette goûter dormi collation ca bureau ba ngénte bepaheo. bépp jus orange ngir may actonus. cawarte ak tonus jus corossol amna, na lol si yaram ak ay ferñeenteem yu am solo gingembre bi moom dafa baax lol si gour ak ay vertu itam si organisme Pui bina de day wàññi toy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus oh, oh dina yok sen katan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg naturel nak Vito soo exsident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag nekk si emballage civilisé Tour. ak jus Vito da am choix Vito jus et existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres Vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 beaucoup de téléspectateurs yi Aïcha Faki euh, tey jii nag sur le terrain pour voir euh, ci un petit impact bi manifestation yi au niveau de l'université Cheikh Anta Diop ñu doon doxantu ci alentour bi tey jii tase ak suñu papa papa maa ngi lay ziar. lay dellu ziar bu baax. papa tur bi ak sant bi. Tamsir Cissé. Euh, papa nous gis ni récemment dañoo assister ci manifestation

Euh, kenn du ci mucc ndax ñëpp ñoo ci yàqule bu problème amee tamit problème bi ñëpp ñoo koy bokk mais li ci gën a am solo rek mooy man li ma gëm man moom lay wax mooy àdduna lépp nañ ko def ci wàllu waxtaan lépp lu waxtaan lépp lu ñu waxtaanee jàmm dana mën a am lépp lu ñu waxtaanewul lépp loo xam ne waxtaanewuñ ko jàmm jàmm du mën a am moo tax àdduna nu mën demee ak lu mënte xew rek dañ ko waxtaan bu ñu waxtaanee rek solution dana dal di am loolu daal mooy àdduna noonu laa ko jàppee lépp waxtaan la rek waaw ndax àdduna moom lu ne am na fi waaw te lépp si waxtaan la mujjee bañ mujjee rek lépp kon lu mënti am rek nañ ko waxtaanee. effectivement ci wallum waxtaan boobu noonu tamit est-ce que foogoo ni étudiants yi maanaam ndaw ñi dafa am lu ñu bëggoon wane moo waral tey jii nii kër googu noonu ñu yàq ko saccagé ko ba ñu tëj ko ba nouvel ordre instant bii nii ñoom ñëpp ku si nekk dellu nga sa kër toog. yow loolu boo leen doon digal lan ngeen digal en tant que parent parce que ñàkkul ne am nga mbokk bu fa ne wala am nga doom bu fa nekk. waaw ah, man Saalum laa dëkk am na ñu fa nekk en pagaille di fa jàngee foofu noonu waaye li ma mën a wax daal mooy mooy li su ma njël mën a wax rek yàqu-yàqu bu amee ñëpp ay yàqule kon nañ nañ ci waxtaanee rek su boobaa lépp dana dal tëgg si incha allah bu soobee yàlla balaa lii di am mooy toujours rek mbir bu amee bala muy am war nañ mën a xool ndax lii bu amee arrangé na wala arrangé réew mi bu nekkee nag xam nga man li ma gëm mooy lépp lu ñuy mënta def na nekk loo xam ne luy arranger réew mi la lay nekk mais lépp loo xam ne ñu ngi koy def te arranger réew mi wala ak kële si taar réew la jëm kon nañ xool liy defar réew mi ñu di ko waxtaanee su boobaa réew mi lépp dana mën del si delloo ci jàmm incha allah bu soobee yàlla effectivement si jàmm jooju ñuy woote lan nga xalaat ni moo war a delloo si jàmm fii si Sénégal lii delloo si jàmm Sénégal lan mooy mooy waxtaan mooy li ma li may suma njëlbeen wax waxtaan daal mooy indi jàmm ci réew bu ñu waxtaanee lépp na dellu si jàmm incha allah bu soobee yàlla te yaakaar naa ne dëkk bi ñun nekk nañ ay nit ñoo xam ne ay nit ñu am kilifa lañ parce que li koy ko bu problème amee sax da ngay dégg ñaan la na diw na diw wax wala kilifa di nañ wax nekk ñu ay ndaw yu violent ay ndaw yu baax la ñu am ay ndaw yu am kilifa te di déggal kilifa yi ñun amuñu ndaw ñoo xam ne nii ay ndaw ñu bon la ñu ay ndaw yu baax la ñu am waaw parce que da ngay si ñaan la na diw wax na diw wax kii toog nag réew mi di am problème mu ne di wax kooku am na kilifa ndaxte boo amatoon kilifa du Effectivement. Euh, chers auditeurs, je vous remercie. C'était Aïcha Faki pour le reportage. Vidocopter explosion de saveur dans une même et seule bouteille Fuyep, yi yëpp ko Sénégal si anam yu sell naturel jus pour seen goûter dormi collation ca bureau ba manam maanaam bépp jus orange ngir may leen cawarte tonus jus Carasol amna, bar lol si yaram ak am solo gingembre bi moom dafa baax lool si góor ak ay vertu lol itam si organisme Puibina, bi nag day bar toy baax si yaram tayit yi jus bissap oh, oh dina yokk seen vitamine rek la ñi bëgg so naturel vito pour fête bu monti doon te si gune ak emballage civilisé Tour wóor ak jus vito da am choix vito jus et so existe en bouteille de 1,5 litre et 33 centilitres vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité Keur à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06